jàmm kenn mënte yendu ci njombe fanaan ci kaas ci kaso ngay mujjee fanaan yi njombe la xew ca Kédougou am na ñu ca nekk ci garde à vue l'observateur ne tey laa leen di wax la enquête ba njëkkee leeral ndaw si Dura Diallo la tudd ñu ko daan wooye mami ay atam toll ci fanweer ak juróom-ñaar dafa ëmb ba am juróom-ñeenti weer matal waroon a mucc demoon ca hôpital bu Kédougou waaye la fa am ba ndaw sa faatu te journal Futur Média bi wax ne moom la enquête bi fésal rafetul ci wax ko waaye nag li leer te moo di ne autopsie ba procureur bi santaane woon la mu wane doy na waar waral ba gynécologue ba di Léonce Mbaat Faye yi anesthésiste ba di Abdul Aziz Jum, ak infirmier ba di bakari Diabaxate tak nañ ci rip ba nu japp len bëss bi le journée moo tax ba wa SATSUS dakkal SAMES itam dem ci grève générale ndax ne lan motax ñu téye seen yi ci luñ amalut ben enquête libération yéene kaay mel ko nan len enquête kay amna ndax nak ñi ñu ci tuddu dem rek enquêteur ya té sax ñom ci seeni kàddu dañoo meloon ni ñu rër kaddu yu dëgër te leer la réew mi di président Macky Sall yëkëté ci jam ñaajo waral ba talam da naka daj na yene ci yéene kaay yi nu las quotidien lu leer ba mel ni midi la Macky Sall wax ci pétrole beeg gaz bi mu ne nin ko nara yore ak doxalin gi ba fii amul benn sikki sàkk te it amul luñ cay nëbb le quotidien ne Macky Sall kay jeexal na coow li ba noppi ne gaz beeg pétrole bi liñ ciy wax naan nii la ko nguur gi nara yore du dëgg mu ne lépp a leer te it jarul coow sud du quotidien ne cour la ci Macky Sall def ngir jeexal coow li l'info ne coowul pétrole beeg gaz bi bu doon récréation la nekk ñu ne Macky Sall jeexal na ko le soleil ne ba noppi woote ci booloo ngir ñu amal ci exploitation bu mucc ayib l'observateur Sall xibaare ne nguur gi lu toll ci juróomi junni milliard ci xaalisu CFA la soxla ngir yeggale projet yi jëm ci pétrole beeg gaz bi ci ab bomb la ay farandom toog moom Macky Sall turbine yéen kaay moo ko wax enquête yéen kaay ne waa Benno Bokk Yaakaar kay mimi moo leen ëlëm ndax naka fàtte nañ ko fi lu yàgg mu nekk itam ci ay jafe-jafe élection falm député yi nu génn itam mu lajj ci fu bari waaye terewul ba fii ñu njort ne moom Aminata Touré moo nar a jiite pencum ndawi réew di assemblée nationale source a ne Ahmed Aïdara itam nee na jiite pencum ndawi réew di assemblée nationale la bëgg waaye yéen kaay bi nee na am na ñeenti jurisprudence yoo xam ne moo tax ba fii Ahmed Aidara ne du ca dellu gannaaw le témoin ne coow daal tàbbi na ci kan moo nar a jiite pencum ndawi réew ma di assemblée nationale waa parti socialiste ne ñoom moom faaw ñu dem ci yoon ak maire bu Guédiawaye di Ahmed Aidara ndax nag dañoo dégg ne moom Ahmed Aidara li mu wax ay naataangoom moo di ne nañ ko samp ngir mu nekk seen mbër ci ki nar a jiite assemblée nationale ne bu boobaa dina am yoo xam ne ci PS lañu fare moom lañuy voteel waa di parti socialiste loolee metti leen ñu ne dañuy porter plainte Ahmed Aidara Ahmed Aidara ba tey ci biir yéenekaay bi ne mësu koo wax tey ëllëg waxi nopp loolee ay kàddu la yoo xam ne ay tuuma la ko jàppee lii quotidien ne waa PS daal dogu nan te it nee nan dañuy plainte Ahmed dara journal bi yokk ci ne lii lépp moo ngi xewee ci làngug politique gi l'observateur itam ne làngug politique gi ci ngay gisee waajur ak doomam nekk ci waaye duñu bokk fu nuy jaar Jean Paul Diaz ak Barthélemy Diaz firnde la ci Moustapha Cissé Lo ak doomam ji di junior loo itam calan bokk ba ci Imam Mbaye Niang ak Mame Mbaye Niang ku ci nekk yow ak sa doomi deret bokku leen foo leen aw ci làngug politique gi ñun ñu aw feneen wax ci leneen jublu ci màggalu Tuuba gi Direct News xëy fésal nataalub Serigne Touba boole ci di faram fàcce lan moo waral màggal gi ak la ci Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul santaane Vox Populi moom it xëy wax ci lu yaatu boole ci dinu gën a xamale Serigne Abdou Samane Mbàkke mi nekk doomi Serigne Touba ni mu nekkee woon suufi ni mu jànge ay jaar-jaaram ba ci tukki yu bëri yamu daan amal ca Casamance Kumpentum ba ci Njàmbur Kalifuru fa lanu jàppe woon ambulance bu sëf dorog Libération yéenekaay ne Mamadou Gaye may ndekete ay weer a ngi ni mu cay sëf dorog di daw ci diggante dakaar ak Médina Wandifa journal bi ne laataa ñu koy jàpp nag ay yoon yoon sawaay romb na takk der yi di klaxonné ñu foog ni malaat la yàpp ndeke booba dorog moo ca nekk